fa njëriñ nee keroog la sëñ bi wax des koo keroog diine ji ak lislaam ji dëgg nañu mbég mu rëy rëy ci gan gi waxaat yeneeni wax yu rëy ci daraja ak i ngeneel wallahi moo am maxraja ba bis ba dellu mu dat koy berndeel dal néew turam abdul aat moo barkeel am naa ci yaakaar lool ca abdul aat mile kon jooja yaakaar seere say jëfam yile mu am fa ab diir dal di jàngi alxuraan fab fa mokkal man xaruut man na bayaan soobu ci xam-xam jël ca lam ca soxla xam na bëggug baayam ku am fa la ngir bamba wax nanu ci xeeti xam-xam yu am njariñ ak yu amul caa xam inna allati lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afna alfunoon inna allati lam yaxsha rabba alaalamin laysa bi aalimin walaw afna alfunoon falxilmu laa bi kasrati riwaaya bal innahu nuurun maha diraaya mu jël ci leeri xam-xami diraaya looloo waral du juum ci jenn aaya taxallamul xilma li wajhi llaahi lii moo taxoon léppam di jëm ci leehi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 mend bi naa ko nit mësul ni tooñ na ma mësula a boddu mbaa mu tooñ doom aadama menn mi ko nit mësul ni tooñ na ma xamul ku néew doole xamul ku bari le lu ñëw ci moom ca ab safaan mu jéggle sàmm bu sàmm sax baruuri toolam su ca yamee kenn du ko yëg fa lay yam lem jëf ci nit ñi menn xel du ko xiyaas saa rangee ca góor ña gën leeni palaas doonu murit saadix bu ñàkki caaxaan sas jumaa ji genn góor du ko ci daan ku yeex mu ñaar benn la ci jumaa ji lii moo waral mu am xadaa alxaaji ci xaama dasta la ñàkk waayam seex mustapha mbakke magam ndar laayam mu daa di songu fallu laahi mbakke ma donn yoon wa yooya gaay ñoo tekki fa mu tegoon baayam la teg seex mustapha bam leen gisul Seex lu ñëw mu teg ko faa du juum du farfarloo xolam amul kañaan moo mi jëfam lépp la teg ci alquran ku aw sarihatu te aw xaqiiqa la ku leeri mbir la moom du xiili xaala du wax ca kaw di wax ca suuf day leeral foo ko mosaan fekkit ku baax lay toogal mësula jëw nit te bëggul ku jëw fi moom ku jëw fi moom su ko yëgee nga dal ni xiim cërum ngëneelam ba ko yàlla jagleel ca lay tibal nun ñii ko yàlla booleel sax ci liggéey yàlla yàlla fàtte adduna man jortu naa ni kii jikoom ya fàddu na xëccoowuloon ci addina ay daraja ngir jay na war na kuy xëccoo ay daraja daa wax ni addunaa ngi nii lum la andil cib xaritam la ko nangoo ni la jëlal fam ko masaafiir bajjo jaar fa jàll te du ko laal ëskey satum maam balla fu mu ko masaa fiir jaar fa jàll te du ko laal ëskey satum maam balla fu mu jaar ci réew mi bàyyi fay jeexiital mbaatol ba kàbbu baatinam ba tuutul way ci liggéeyal yàlla ak yonen ba xuus na ci dooleem ba jege yonen ba xuus na ci géeji leeri ahmadul xadiim duy na ba giijal moo di xaadimul xadiim jëfal na seex bamba ci taalibeem yi jëfal ko yit ci gaaya réere yoon wi xaadim rasuul moo ko matub sahaaba te du ci dañ li feeg bisub la yooba nib jant leere saa su tolloog la gën leere jaam ñi moo doy guwaar buur yàlla kum fal boole laag rasuulu mu boole laag seex bamba jar ngaa wóolu aaja sëriñ tuubaa jógee ci géej gi moom la ko jox mu jiite jéeréeg géej gi wilaayatug sërif ya woon ca naar ya bambaaka jël jokko mu jiite gaaya tolloowul ak kenn ci ay maqaama deesu ko xam li feeg bisub xiyaama di yóbbu ay hadiyatoom lillaahi ci xalifab seex bamba fallulaahi wutulu tur wutul alal mbaa daraja lum masa yor joxe ko dem ca daaraja doyloo na bamba waaye bamba doy na ko jëfal na bamba waaye bamba fay na ko jaajëf satum maam Balla ak maam Maharam Seex Abdul Ahad jëfam yi yépp a saf xoram jox nga njukkal maam jaaramee fa poroxaan ségal nga maam Moor Anta doo ku yomba daan cey li nga jëf mu jëm ci yoonu yàlla méngoowul ak ñii di la roy ci kaala li nga jëfaat it ci sunas yonen ba dëggal na lislaam te sigal sa baay ba ak li nga jëf ci yoonu xaadimu rasuul sa jëfa mel ni juj sahaabatu rasul jëfal na yàlla te jëfal yonen ba sigal na baayam fa kanam yonen ba mësula jëf dalla lu neex saytaane walay param ñooñi la yàgga daane wéeri ci yàlla dal di adduna ba yàlla buur bi àtteloo ko adduna ci xaama xastasin la fallu leehi fekki sëriñ tuubaaj mu dal ñëw tooge xilaaf baayam naka la ak si jaar fa tànki baayam xalifatul xadiimi haam hafsa si ña fekke bamba nee ñu moo fi dellu si alar ba jam toogee ci haama hafsa si ba ca dibéer jam wàcc haama tata si boobii diggante ci la ñépp luume def na ci lul deful mbégum saytaane boobii diggante ci la ñépp luume jëf na ci lul deful mbégum saytaane déglul ma wax la lam defal sëriñ bi ci ak ayam cey fa mu teg sëriñ naka laak si dal di miir ji defal ko ay làmp mu wër mooy waa ji barabu sañ bu mag ba moo ko yeesal des na fa sooy def fa wurus kon juumul moo pentiraat xubba ya lal fay tappi décoore biir ba mel ni daf caa noppi ndekete am nuyoo la daf cay delsi lam ca defaat mayit danaa ca delsi ndekete am nuyoo la daf cay delsi salaatu wasalaamu ala rasulillah xam naa si mu laaj bi laaj bu am solo la bisi moom daanaka comme ni ko ñëpp xamee rek bisub sakku tuyaaba la bisub farli ko waaju baax la Sëriñ Tuubaa mi xam ne moo jaboori Cheikh Abdoulaye moo ne am na yaakaar yaakaar yooyu moo tax kenn ku ne ñëw fi boo xoolee ku rek bëgg li nga ci yàlla yéen dem Sëriñ Tuubaa am ko loolu rek moo wax daanaka kenn ku nekk ñëw ci bunt ko Cheikh laa di ñëpp kenn ku nekk ñëw tamit sëñ Siidi ba ci soxna Njaxat mii kenn ku nekk di ñëw di siyaare ak maanaam ngir bëgg li nga bëgg ci àdduna ak alaxe yàlla defaloo ko te kenn ku ne xam ne Cheikh Abdou Lahad Sëñ am ci moom yaakaar loon waaye yaakaar ci tësul muy koo xam ne liggéey Sëñ liggéey boo xam ne xalifa bu ñëw cëb liggéeyam ngay jaar loolu yàlla def yàlla ko may vision may ko xalaat may ko gis-gis mu liggéeyal liggéey boo xam ne kenn ku ne xam na ni ku ñëw rek ginnaaw Cheikh Abdou Lahad ab liggéeyam ci ngay sof loolu ab yàlla ko ko defal njaboot gi nag ñëpp baax lool rek waaye rawatina soon si nga xam ni ni nga ko waxee léegi kenn ku ne xam na ni am na cër ci waaye juróom bu baaxu mu Cheikh Abdou Lahad ci bëgg bëgg lu baax ngilite gi waaye islaam gi waaye taalibe gi boo xoolee waaye nag sëñ gaawaan jur waa juróom wu jigéen sëñ Tuubaa jur waa juróom wu góor loolu boo xoolee massie la mooy ngëneel la waaye nag li muy bokk fu baax waaye te jikkoom it ku jaxasoo moom doo ko bëgg a bàyyi ngir jikkoom loolu ko moo tax kenn ku nekk di ñëw di taas barke ci moom ci waajuram woowu noonu ngir siyaare ak ñaan yàlla defal ñu tawfiix ak taysiir loolu daanaka ko gis ma ñëw rek sëñ bi moo tax mu ñëw sëñ bi ma amoon tawfiix Sëñ Tuubaa am ci yaakaar yaakaar jooju tësul liggéey Sëñ liggéey boo xam ne kenn ku nekk xam na ni liggéeyam Sëriñ Tuubaa moo waral kenn ku nekk bàyyi yitteem góor ak jigéen mag ak ndaw di ñëw ci mbooleen ci buñ ko Cheikh Abdou Lahad waaye fii nag kañ gii nga xam ne mooy kilifa ak soxna si ku ne xam si Cheikh Abi ci wàllu xam ci wàllu bëgg Sëriñ ci wàllu jàngale ci wàllu taxaw fi mu taxaw ba kenn ku ne xam nitu diine la son si salekaat loolu moo nekk ci moom rek moo wara kenn ku nekk rek ngay safoo di ñëw ci Sëriñ eh, Cheikh Abib waaye di jaay soxna Njaxate mi nga xam ni moom tam kasaalikaay ku ne xam na ni duriyatan tayyibatan tujaddidu ndax jën nabi Moustapha te tahidu ci lay dox nekk ci lu baax di wax lu baax def lu baax am ak ñëpp boo xoolee xaa maam jàmm ba kenn ku ne yéene ko yàlla gën ko yàggal gën ko wéral kenn ku ne am ci moom taw tawfeex goo xam ni jikkoom moo ko waral ndax bu ko neexoon man naa bañ a woyof ci taalibe yi waaye woyof gi am na jàppale taalibe gi am na waaye bëgg si gi am na loolu ko mooy ñëpp ñëpp seere ci moom eh, léegi la suñ si suñu amit Mbàkke Daaru Salaam moo yónni ci moom di wax ni ko woon suñu am moo nekk premier sër suñ gaawaan waa Tuubaa ñi ñi mu bokk si laal ñëpp fonk noonu seen dan wax na ko si maam wax na ma ko mooy su mbokk ñun Tuubaa ñoom ñëpp wax ñu soxna njaxate mooy koo xam ne kenn ku gis nga ci moom jikko joo xam ni jikko baayam rek lay doxee kon euh, kenn desul te ni waa ko Sëriñ Tuubaa ñëwee la waa Daaru Muxti ñëwee noonu la Salaam ñëwee noonu la seex yi ñëwee noonu la kenn ku nekk ñëwee ci ngir moom ñu ne waa Daaru ñëpp ñëw dem ngir waaw ñoom ñëpp ñëw dem boo xoolee kon day mel ni jikko ju ko yàlla defal la ak bëgg mbëgg Sëriñ Tuubaa moo waral li nga wax léegi kenn ku ne di ñëw ci ko fekk si xam ni taxawaayam ci diine ak ci islam ak ci yoon yi moo waral ñëpp am relation soxna si bëgg ko loolu di ko ñaana yàlla dafa ko taw tawfeex ak taysiir àggale yéeneem baax a baax sëñ Axma Gaawaan mu sëñ Mor Gaawaan moom itam noonu ko taleka noonu kenn ku ne rek njaboo sëñ Tuubaa daal seexe kenn ku ne desul ñëpp bàyyi ko xel bis bi ñëw fi ko kenn ku ne xam ni moom seenum soxna njaxat la waaye kenn nga xam ne maanaam seenum jigéen la kenn xam ne seen péete la loolu yàlla wax def ci moom yàlla gën koo yàggal gën koo wéral gën koo taxaw ni fi néew teew ñëpp ku ne say aajo yàlla faj ko biir ak biti te yàgg ko ànd ak moom bëgg si ndox salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. soxna Ndaak Ñaŋ laa tudd Baye Fallou sëñ Abi ak soxna Jaxat waaw nekk ci màggal ak sëñ Abdou Lahad sunu bàyyi sëriñ di soxna sant rek. ak ñaan rek lu nu man ren yàlla nañ mën déwén lu ko ëpp ci barke sëñ Abdoulaat ñoo ngi ñaan bu baax di ñaanal soxna si bu baax a baax a baax ci barke sëñ Abdoulaat yàlla nañ ko màggal at yu baree bari ci barke borom jumaa ji di sant suñu sëriñ yi ci kaw sëñ Seex Abi mu yàgg fi te wér lool te barke borom jumaa ji ak soppee soxna jaxat yëpp ak waa waañu góor ñeeg jigéen ñi Baay Faal yi ni jàppale ci waañu ak soxna yi ni nekkal ci waañu ñoo ngi ñaan bu baax daal di sant ci barke Seexul Xadim yàlla na yàlla yokk xéewal ñu yàgg di ko fi màggal ci barke sëñ Abdou Lahad borom Bel. Moussa Dieng taalibe sëñ Cheikh Abi sant rek màggal gi moom man maay jëwriñu waañ bi ko man maay Moussa Dieng jëwriñu waañ bi da tey moom defaran ñett nag ak ak daanaka 200 200 ginaar waaw ñu ngi sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla màggal gi moom dafa bokk expo yi yeneen màggal yi màggal yëpp la ñuy màggal mais gii moom da cee raw soxna Ndiakhate moom mel ne noo xam ne foog na foog nga xam ne yàlla xam na ne moo tax màggal ñëpp si jàpp moo tax xéwal lu mu bëri lu mu yàlla xam ne ne gi bi ñaan mu gën a yokk nag yi ñu defar ak yëpp ñu defar dañ ko xeeb nañ ko sax waaye xewel boo gisee xewel yëpp mu nekk nii ak yeneen yi ci biir ak mbali yi des lépp rek maal ga bayal gee ko waral soxna Njaxate day kenn suñun moo tax waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax te di leen ziare di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha xalifa général kulu murid di ñaan mu yàggal fi loolu ànd yàlla yàggal ko fi loolu te ànd ko wér di ndokkeel sëriñ Sidi Mbakke mi nga xamante ni moo fi Cheikh sëriñ Abdou Ahad ak mboolem njabootu sëriñ Abdou Ahad gépp di ñaan bis bii ngeen ñu fekkee muy màggal suñu Abdou Ahad édition 2023 ci kanam soxna su sell si muy soxna Njaxat Mbàkkeem suñu Abdou Ahad yàlla nañ ko fekkee at yu bëree bëri ci barke sëñ Tubaa Xaadim Rasuul fii ngeen ñëw nag mooy kër soxna Njaxat moom sëriñ Abdou Ahad Mbakke ñu dénk ko sëriñ Cheikh Abi moom sëriñ Abdourahman Mbakke moom sëriñ Balla Coro sëñ Seex Abi kon moom sëñ Abdou Mbar moom sëñ Balla Coro ni ko mbooleem ñi mbokk si Abdou Lahad ba ci sëriñ Sidi Mbàkke mi kilifaam di màggale rek noonu la koy màggale muy jàng alxuraan xasida salaatu ala nabi bernde yi yaakaar naa fi ma leen romb ngeen taxaw si ngeen ko jëlee xam ngeen ni la waajuram waxoon rek si Abdou Lahad nee na boo xewlee saw ñam day yàqu baa sab der yàqu waaye ku fi ñëw xam di nga xam ni fii ku fi yenn ab ñamam fi yàqu waaye ab fi yàqu loolu nag li muy firndeel mooy bernde yi tubaarkàlla dara jeexul ñëpp ànd nañ waaye nag bi mu wootee bokkam yëpp wuy nañ ko moom mii nag damay faral di wax ni su wootee Sénégal a koy wuy si su wootee yoon wee koy wuy si su wootee àdduna koy wuy loolu nag li ko may mooy ni suñ borom dogal mu feeñi ndax doy na sëkk nga ni doomi Cheikh Abdou Lahad la te cer na yoon wi amul góor amul jigéen jànd matt kenn ñu lijjanti góor la am jigéen waaye tamit boo nee soxna njaxat ni eh, Cheikh Abdou Lahad ni Serigne Touba Xaadim Rasul da nga naan soxna njaxat ni soxna daba ni maam Cheikh Anta ca maam Cheikh Anta ak sëñ Tuubaa ñoo bokk lépp te kon moom ci loolu ko suñ borom feew foofu ko suñ borom feeñee bokkam gépp ñëw nañ waaye njabootu sëriñ Balla Coro gépp ñëw na communiqué bi ñëpp dégg dégg nañ ko di woo njaboot sëriñ Balla Coro gi te bu ñu ñëwee liñ fi fekk moom la fi ñëpp di fekk waaye cër bi nga xamante ni moom lañ fi am tamit bi mu leen di jox kenn amu ko fi ndax yàlla dafa loolu ñu dénk ko sëriñ Cheikh Abi moom sëriñ Abdou Mbar mu sëriñ Balla Coro loolu nag mboolem mbokki sëñ Abdourahman sëñ sëñ Seex Abi yëpp ba ci ñun ñi di ay taalibe yaakaar mbar buñ ñëwee fii la ñuy ñëw te dara jeexul ni ñuy def daal na mooy yàlla ñi nga ñaan yàlla na ko yàlla màggal ànd kook sëriñ Siidi kilifaam ak i magam ak i rakkam ak njaboot sëñ Abdou gépp njabootam gii di ko tàmbalee ci sëriñ Seexul Xadim ñëpp yàlla suñ borom teg ñoom loxo yàlla guddal seenu fan wéral seen i cër mboolem ab taalibe foo mën a jóge ñ toog ci saal beeg ñi nekk ci waañ weeg ñi fi ñëw barki démb ak ñëpp ñi ngi ñaan lépp lu fi fay liggéey yàlla ko Seex Abdou Lahad te laqal ñu ko fi yàq yéegul wax naa la ko léegi jaan du matt kenn ñu lijjanti góor laam jigéen mosoo ko dégg jaan da koo matt ñu naan jaan ju góor laam jaan jigéen amul la suñ borom def jaan nag mën na ko ci doomu aadama te kenn rek dox diggante ak sëñ Tuubaa muy Cheikh Abdou Lahad kon Mbàkke ñu ngi ñaan yàlla nga fi àgg yàlla nga wér ci barke bis bi barke sa waajur baax wa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu